ma ñëwee Mbuba tamit dama dugg ci parti bi ñuy wax réew mi donc ma nekk euh, depuis 2009 coordonnateur bu réew donc bi ñu demee ba 2017 nag ci laa génnee créer un mouvement citoyen bu ñuy wax alliance pour une nouvelle direction ànd dem Thiès nag sañ fa mouvement bi di travailler dans la citoyenneté maanaam dem askan bi di ñoom di saafoon ak ñoom wàllu wér-gu-yaram ci wàllu koom ci wàllu. financement des femmes féminines donc loolu la mouvement doon def depuis ba fi ñuy wax ak yow mais nag bi élection yi ma ne comme élection présidentielle ñun foog ñu participer ci candidat yi fi nekkoon ma tànnaat candidat bi nga xam ne moom laa newoon ci parti muy le président Idrissa Seck li tax ma tànn ko tamit lu yomb la mooy Idrissa Seck c' est un homme d' état c' est un homme de parole nit la boo xam ne dafa fonk kàddoom boo xoolee sax Macky Sall entre les deux tours 2012 bi mu sama kaddu lay sàmm donc nit la ku fonk kaddoon ku am expérience su état la te ku xam nguur la parce que boo xoolee expérience bu ndaw bu mu def ci état bi 2003 ba 2004 un an et demi boo xoolee la fa def te bi mu bi mu nekkee foofu gis nañu taux de croissance su Sénégal ñëw na ba 6 pour cent te ñoom dañuy ñu ngi bàkkoon ni def nañ fi 5 ans doo ko am taux de croissance 6 pour cent mais moom benn at et demi la def def taux de boo xam ne weesu na pour 6 pour boo xoolee bi mu ñëwee dafa laajte Sénégal.

d'autres les infrastructures sociales de base donc le bi en 2004 donc def 1400 villages dispensaires euh, marchés hôpital ak ak donc 5 infrastructures de base donc il a pu en faire ça dans 1400 villages donc kooku vraiment xam na réew te bi fi ma premier discours politique général parce que je ne ngi pas ci dafa ne woon dafa ne dafa dafa dafa dafa jël engagement fay bon pay moom dafa ñëw rek bon pay amatul donc yooyu def na ko fi muy boo xam ni am na expérience état te boo xoolee candidat yi fi nekk moom moo leen gën a c'est le candidat pour diriger le Sénégal donc moo ñu tànnaat ko àndaat ak moom ci la coalition bi di 2012. waaw ñu gis ngay doomu Thiès nekk géewul yi bëgg sopp la ginnaaw jiital la mm-hmm. sa ambition ci géewul lan la ëllëg waaw xam ni di toogee ah bu ngeen di toogee sama ambition xam nga man fi laa commencé politique géewul mais bu bi di toogee tamit sama ambition mooy continuer li ma doon def rek géewul mooy jéem a soxla géewul sur le plan de l' éducation sur le plan de sa de la santé su le plan de l' ak lépp li nga xam ne koomu géewul man bu ma bu di toogee ci loolu laay taxaw comme di def ko fii géewul moom moo waral tey mobilisation bi donc géewul moom bëgg naa moo tax ma bëgg tey muy ñëw mu xam ràññee bu baax géewul ni ko fonkee pour que moom bu toogee mu mën a xelam nekk ci géewu pour mën a développer ay infrastructure ci géewu géewu soxla nañu lu bëri fii mais gouvernement yi fi jaar yëpp pratiquement boo xoolee yu bëri des na donc moom daal yaakaar nañ ci moom bu ñëwee parce que moom dafa gëm vraiment biir Sénégal biir Sénégal donc moom bu ñëwee yaakaar naa ni dëkk yu muy defar géewul def naa dina doon dëkk yu njëkk yoo xam ni moom dina dina dina ci def xelal te dina ko defar baax. waaw ñu gis ne moom mu lay seet si tey jii lan lan ngay wax waa géewul tey jii ci seet si bi nga xam moom la lay seet si ci géewul. waaw seet si bi nag moom ñëpp lay seet si quoi waa géewul yëpp lay seet si moo tax maa ngi lancé un appel à tous les géewul la leen wax ni euh, Idi euh, président Idrissa Seck dina ñëw tey gëw donc xam ngeen tournée élection élection euh, campagne électorale lu lu kii la daal lu lu yàggul la daal moo tax bu doon sama sago waa jiw yëpp lañ jënd tey wan ne ko ni ñun yow yaay sunu candidat wan ne ko bëgg nañ la pour que moom bu falo xelam mën a dem géwul la appel boobu laay lancé waa géwul man la coalition bokk ci coalition ak waa réew mi parce que waa réew mi ñu ngi géwul ñom ñep ñi ngi fi ñu ñoo bolé ñun ñep pour mëne ko accueillir tay bu ñew ci ci ci le long de la presse. waaw ngay tayé li may tëjee rek mom moy que ma ngi ñaanal le candidat du Idriss Seck. yàlla may ko ndax au soir du 24 février 2019. la laa koy ñaanal Sénégal mu jik Sénégal jig askanu Sénégal loolu la koy ñaanal. asalaamaaleykum mbokki Ngoumba ñoo ngi nii jànnoo ko nga xam ne mooy euh, ne ci euh, coalition représentant le mouvement gëm sa bopp bu Bougane Dali bu ki nga xam ne ku ne xam ne ku ci géewul yaakaar naa kenn du ko laajte taxaw ak euh, ngoon ñu xam ko moom it représentant takku Dakar bu Khalifa Sall ñoom ñaar lañ taxawal nii kon buna. Bouna. Euh, malikum salam alfa ñi ngi lay nuyu di nuyu Gueoulart TV di len sant bu baax ci liggéey bi ngeen di def. wa ñu xam ñu bëgg laaj kan moy buna kan moy buna job? alors buna Mo job euh, natif de Géoul la enseignant de profession di yëngu ci politique alors tay nak mo am lo xamni ni lu am doole lu ñu réunir parce que Sénégal jëm ci alors ben phase bu am solo muy le 24 février 2019 des élections présidentielles ñu wara a maintenant le 5e président yàlla def ñu ñu yëngu ci mouvement gëm sa bop représenter le Bougane gay dani ma nek coordinateur départemental euh alors euh, suñu leader di Bougane gay dani choisir le candidat idriss Seck pour and ak mom ci lutte xex bi nga xamni mom moom def fi aussi au niveau local may jëmmal bu baax euh, bobu and may jëmmal bu baax bobu and waaw ci lañu nek ni alors tay ji nak ñu wara ñu war a teeru le président Idrissa Seck mu war a jógee Louga jaar biir Géoul nemmeeku militants yi nemmeeku waa coalition yi di 2019 donc euh, amatul couleur mouvement amatul couleur parti ñun ñëpp on s'habille en orange taxaw teeru le président Idrissa Seck. waaw yow la ngay wax waa Géoul tey jii.

ñu xam ne ñoom ñëpp seen baat dañ ko soxla ci tànninu réew mi tànninu réew mi nag mooy avenir u Sénégal fii ak juróomi at ca kanam voire fukki at kanam donc ñuy wax ni doomu ngumba war nañ ci jouer seen partition bu am doole jouer ci partition bu baax ci loolu lañ leen di xaar moo tax nga ciy woo kenn ku ci nekk xam ne am nga ci wàll boo war a dox alors nga ñëw dox ko ñu invité la ci loolu liggéey boobu boo xam ne ñun ñëpp ñooy ko sumbandoo yàlla yàlla defal ñu ci ndam incha allah. waaw comme coalition nga doomu géewul di di di Ngone Ngone salaamaaleykum Ngone. maaleykum salaam Alpha. waaw kan mooy Ngone. maa ngi leen di nuyu di leen sant ci interview bi ngeen ñu invité. waaw ngoon moom euh, c'est jeune euh, géewulois bon. dëkk Géew juddoo fi en fait nekk un enseignant bon di yëngatu tey nag si politique yàgg ci yëngatu nag nekkoon PS jóge fa ànd ak euh, Khalifa Sall pour bañ rek li nga xam ne moom la mooy euh, problème yi am Sénégal ñu jëm ko àndandoo résoudre ko quoi loolu lañ bëgg quoi voilà. léegi nag euh, tey si tey li ñu fi indi mooy que ñu ngi ci biir Idy 2019 coalition Idy 2019. di ko tertu tey nag fa Guéoul vraiment ñëpp ngi takku taxaw pour tertu ko notre président notre futur président di ñaan yàlla yàlla may ñu ndam parce que Sénégal ñu mu toll nii dafa am ay problème problème yooyu dong moo tax ñu jóg pour jëm ko résoudre mooy suñu yitte leneen du parce que fii koo fi gis dund gi mën na dundal boppam mais li nga xam ne sii mooy l'avenir des jeunes moom la ñuy bëgg assurer suñuy doom suñuy sët ba xam ne ëllëg ñun liñ dun ñoom duñ ko dund loolu rek mooy suñu taxawaay. yow kon kon lan nga wax waa Géoul tey jii ci ci tertu bi xam ne moom ngeen tertu Idriss Seck tey jii. waa di invité waa Géoul yëpp ñëpp lañ génn lañ bëgg ñu génn mag ak ndaw góor ak jigéen d'ailleurs sax defe naa ne ñëpp génn nañ ndax yëg nañ ko te ñi ngi génn di ñaan nag le 24 février.

ci lim laaj ci circonstance boobu ca la ñuy taxaw ndax dëkk bi mooy suñu premier parti waaye lii nag du mbiru ngumba mbiru Sénégal yëpp la au delà de Guéoul mbiru Sénégal yëpp moo tax lépp loo xam ne ñi ngi ci daan xalaat ñi ngi ci daan àndal démb ak ki démb itam ñu ngi wéy di waxtaan ak ñoom xëy nag ñu ci bëri duñ bëgg a feeñ ci média yeeg yooyu waaye ay boroomi xam-xam yoo xam ne ñi ngi ci dëkk bi ñoo xamne ragné nañ bu baax xam nañ bu baax fañ tek seen tank suñuy conseil lañ demb ak barki demb ñoo ñi tam ñi ngi wéy di waxtaan ak ñoom té am nañ yaakaar ci inshallah ren moy yalla nañu defal li gën ci dëkk bi li gën ci réew inshallah li tax ñu and ak idi nak dafa am programme bo xamne mom la jël tek dañ gis ci sun bop gis ci njariñu réew mi buñ jëlee wàllu wi ñu nekk muy walu éducation ku gis na sabotage bi nga xam ne moom la gouvernement bi continuer di wéy te lépp ci ndigalu tubaab yi ndax buñ ne Sénégal or am na fi zircon am na fi euh, gaz feeñ na pétrole am na fi ak yeneen nga xam ne ressource humaine am na fi ci réew mi te bi ci njëkk mooy jàmm ji fi nekk jàmm ji li ko fi préserver boobu ba léegi mooy tarixa yi bay seen waar waaye buñ seetloo gouvernement bi fi taxaw ci lay xëy gont gontu léppam mooy ngir intérêt tubaab te ñun dama yaakaaroon ne dañoo war a jiital suñu intérêt d'abord te intérêt boobu dara jiitu ci euh, jàng ak am ak xam-xam ndax mooy laytaayu bépp développement mm-hmm. jàng xam-xam faj développement du loo xam dañ koy décréter dafa nek lu simple lo xamne meun nañ ko tank ci ñatt xif lek febar faju wara a am fo jangé jeexna la liste des yep c'est des détails yoy moy besoin yi nga xamne nit ku nite lool lool lool lool yitté wo té loolu am nañ ko yaakar ci yitté di laaj nit ñi nak di ñaan nit ñi nañ def politique xel bañ a def politique gu xol. nañ def politique gu xel bañ a def politique gu xol. ah waaw Mame Mbodji moo ñu gis ñu feggoog euh, sa côté ñu toog Ndoumbé Diop ñu xam ko fii ci dëkk bi muy doomi dëkk bi aussi tamit gëm boppam gëm aussi tamit li muy def ñuy gis ko mu soobu ci Idi ànd ak moom ñu ñu lay laaj euh, Ndoumbé Diop lan moo la booleeg Idi. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah ñu nuyu. mbokk yi ñu fi nekkal yëpp di la jaajëfal alfa macha allah ci laaj bu am solo boobu. waa comme ni nga ko waxee rek euh, fi maam ma jëmb daanele foofu laay jëlee comme li ma booleeg Idi mooy ñoo am ci moom yaakaar rek ginnaaw yàlla ah, yaakaar googu ñuy ñaan rek yàlla bu ko yàlla tas euh, surtout li ñu gën a tax ñu dugganteeg moom ñu yaakaar ne lii di suñu bëgg-bëgg ak lii suñu mbébét dinañu ko saafaraal ci kàttanu yàlla. muy surtout dafa am loo xam ne Sénégal dañ ko baaxoo doxoo muy lan ñi nga xam ne borom koom-koom lañ dañuy gën di am ñi ñàkk di gën di ñàkk muy loo xam ne dañ ko war a xeex mu jóge fii dafa war a jóge da ngay gis koo xam ne surtout dafay yor fii ay diplôme di taxawaalu nga gis fee koo xam ne yi BFM am ñu yéegal ko ci foo xam ne der na naa ñu ne lii ñu ko jox du place am du lu mu mérito mais dafa am bras ci kaw rek ñu jël ko jox ko poste boobu te mérito wu ko nañu dañoo bëgg kii nga xam ne ginnaaw yàlla moom la ñu yaakaar te bëgg ko fee teg loolu muy lu mu fiy jëlee muy lan jox nit palace boo xam ne mérito wu ko loo xam ne moomu ko. alali jàmbur la jël foqati ko jox ko keneen ki nga xam ne xëy ne dafa am euh, euh, ku ko taxawal ci nguur gi wala leneen loolu daal lañ mooy li ñu gën a naqar surtout lool ci la bokk. kon lan ngay sa mbokku jigéen ñi tey jii ci ci ci seertu bi ngeen di seertu idi. waaw xanaa sama mbokku jigéen ñi tamit ñu génn jàppale ñu ci teertu bi te xam ne carrément tamit lii ñuy xeex ñun ñëpp ñun ñoo ko bokk tamit nag dañu war a dépasser tamit. mbootaay par mbootaay juróomi téeméer par mbootaay junni loolu amul lu ñu njariñ xam nga lu ñu war a xeex ba xeex ko mooy ñu utal ay bërëbu liggéeyukaay yoo xam ne kenn ku nekk di nga ci gis sa bopp daañ dem ba kenn ku nekk dootul soxlaal kenn lenn mais ay 100000 francs ñu seddal ñu ko par mbootaay ñu tasaare ko ci jigéen ñi kenn ku nekk am ci juróomi téeméer yaakaar naa ne xëy na njariñ li bariwul lool lool li ëpp solo daal nañ ñu fexeel fii loo xam ne ñun buñ ci taxawee di ci liggéey daañ ci gis suñu bopp bu baax Euh, jërëjëf kooku doon euh, Ndoumbé Diop ak Mame Moujibou Sarr ñu ngi leen di jaajëfal ba beneen incha allah. moom nga xam ne liggéeyal na état ba tey ñu gis ko moom it mu xartangtuwam ànd ak euh, coalition ko bokk ci Madick bokk ci Idi ñu koy laaj lan lan lan la war a sànni waa tey jii ba naa ma ma jëm. waa dafa mel ne jarul ñuy wax ak ñoom ndax dafa mel ne dafa jiitu ci xol yi ba kuñ dem ci yow daal nga won ñu nañu jox nañ leen suñu bopp.

wande bi nga xamee ne dem nañ ba nga xam ne suñu Karim suñu suñu candidat Karim sa Wade nguur gi def nay pexeem ba dindi ko ci donc naturellement la ñu rejoindre Idy 2019 ñi ngi ciy liggéey nag. di ñaan yalla au soir du 24 vraiment ñu proclamer Idrissa Seck président de la République mu changé suñu naxar ndax sénégalais yépp ku la ko wax ak ku la ko waxul ña nekk ci seen biir ak ñi ca nekkul ku ci nekk yaa ngi dëkkaale lu la naxari te mënoo ci dara Macky Sall di def lu ko neex guddi di ko def bëccëg mu egsi ba ci dëkk bi nag ki fi nekkal Macky Sall taxaw ci li ko neex ak li ko naxari faalewul kenn faalewul kenn boo waxee mu ne ngu ma ngewul ay picc lañu rek da nga leen di suyal dugub daañ ko won nekk nag ñun nag soxla wuñu ay ay monsieur bay soxla ay dugub bu muy suul ci suuf alaykum wa rahmatullahi taala